alhamdulillah almujib zil qadar man xasana balan bi laylatil qadar alhamdulillah almujib zil qadar man xasana balan bi laylatil qadar maaziman lisaani amidaari xataa qadar xayran min alfisaar والصلاة والسلام أبدا هذا مفتاح النصر في دعاء ليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قسنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قسنا فضلا بليلة القدر معزما لشأنها في دهري حتى قدت خيرا من ألف شهر ثم سلام فليعز ليلتي فاستر معايبي واسمع jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax di leen ndokkeel bu baax ci guddi gi siyaara bi ak ndokkeel bi ñu koy jël di ko teg ci kilifa jataay bi di soxna aji maam busu nga xam ne maanaam mooy boroom jataay bi mooy kilifa képp ku ne fii ci jataay bi ak soxna moom mii mi nga xam ne ñoo ànd ak sëti sëriñ Tuubaa yi teew ci jataay bi yëpp ñëw ànd ak ñun ci guddi gi nga xam ni sunu guddi la di guddi laylatul xadar njabootu sëriñ moo Modou Faty Khary di ko def te ñun suñ suñ Abdou Samad mii di suñ bunt ci kër sëriñ ma sàmb ñi fi gën a nekk suñuy wëlëre ci kër sëriñ Massamba suñ Abdou Samad da cee bokk comme ni ko eh, jëwriñ ji doon wax léegi waxe ku ma xam ko ne xam nga sama diggante ak sëriñ Samad waaye ku xam sama sëriñ Samad te xam nga sama diggante ak moom kon soxna aji Mambusu ñu ngi lay siyaar bu baax di la xamal ni jataay bi yaay yaay kilifa gi ci sa ndigal la ñuy waxe ci sa baat la ñuy waxe ñoo ngi lay siyaar bu baax ndax yaa fi sëriñ Touba di siyaar ñi nga àndal ñëpp di sant sëriñ Abdou Samad nag bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci yoon wi commencé ko ci Ndakaaru ba laylatul xadr gi ñëw yaakaar naa bu ñu fàttalikoo ci gannaaw eh, woote na ndaje moo xam ni grand ku fa dem ku ne sa xol sedd na ndax la fa génn tey te muy njariñ baax na ci réew mi baax na ci yoon yi baax na ci lislaam ji ñun ñii ñëpp ñoo nga foon soxna maam aji maam si mi ñëwoon na ci kon ñu ngi seeral mbokk yi ci guddi gi nga xam ni sëriñ Modou Faty Khary da koo sosoon te muy ati ati ati at yoo xam ni kenn ku ci ne xam na ni daaru karim gii ku ko xamoon bu njëkk man bi may jàng daaru xadim xamoon naa ko boobu ay daara ak doo ngay laxasaay ñoo fi newoon may jàng alxuraan boo xam ni boo ma fa masaa taxaw damay siin dëkk bi boobu dëkk bi ab àll woon ku ko xamoon ci jamono yooyu xam nii mu mel nii nga xam ni ñi sañcoon dëkk bi amoon nañ gis-gis xamoon nañ fu ñu jëm xamoon nañ fu ñu jëmale seenu njaboot ndax bi ñuy sanc fii fii yomb la dëkk léegi ku ne mën na fee dëkk ndax lu am Dakar am na fi kon loolu liggéey moo ko moo moo moo tax loolu am fi Pastef moo tax loolu am fi te njabootu Serigne Touba itam li ñu leen xàmmee woon mooy nangoo liggéey kon looloo taxoon mu sanc dëkk bi ba tey dëkk bi mel nii. kon sëñ Modou Faty Khary nga xam ne maanaam daa woote woon Laylatul Qadr di ko defee Touba jamono dox ba nga xam ne ma indi ko Daaru Karim njabootam gépp fi daje di fi di di fi Laylatul Qadr ñoo ngi ñaan tuyaaba ji nga xam ne moo fi génne lépp suñu borom jotale ko ci yool boobu ndax liggéey bu am solo la te réussir na mission bi nga xam ne moom la doon ndox yaakaar naa mission boobu nga xam ne sëñ Modou moom la doon dox itam yaakaar naa sëñ sama desu ci gannaaw man nag euh, damaa matul ci moom seere ndax dañoo jegante ñun ñaar ba mu ëpp am na loo xam ne su ma ko waxee ci moom mën nañ xëy na sëñ Abdou Samad day xaritu sëriñ Abdou am na loo ne bu ko waxee ci man it mën nañ ne li muy sama xarit moo tax mu wax waaye nag sunu ànd suñ Tuubaa rek daf ñoo boole ñu di ay mbokk war a ànd déggoo ci xalaat yu bari nag di ci ànd loolu rek moo ñu boole ndax mbokk yi bari na waaye duñ ump leen di ci dara lépp bu ma nekkee Daaru si lépp loo xam ne war na ma dakaar te néew ma fa su fa nekkee wóor na ma ne dana ko dox na mu na bu ma fa nekkoon na mu koy doxee dana ko doxe ñaareel itam néew néew na ma nekk Dakar toog lu ma fukki fan te néew ma ko nañ ma toggal nangam falaay añe si wóor ma Aliou Guèye mii duñ umpalante ci dara bàyyi Cheikh Khady ci boppam xamoon na sama diggante ak moom ba bu ñu nee suba la màggal daal dana ma dana ma ana Abdou sama am na loo xam ne daaw jéeg ba mu koy wax ci néew ba da ko ne boo demee waxtaan bu ngeen def kër Abdou soo demee na nga wax nangam ak nangam ak nangam relation mag Baye Cheikh àggoon na foofu kon euh, ñoo ngi seeral mbokk yi fi teew yëpp ñu gën a sant suñu boroom gën a jaar ci ndigali sëriñ bi gën a moytu ndigali yi sëriñ bi te ñaanal sëriñ Abdou Samad yàlla may ko fan wu gudd li nga xam tam yéene na koo liggéey ci lislaam yi am yéene jooju ci réew mi am ko ci njabootuk ma Massamba yàlla may ko kattan gu mu ko defee ndax man xam naa ni xolam amal na yëpp yiw xolam amal na ñëpp jàmm ci lay xëy ci lay dox ci lay ci lay ci gont kon nag ñoo ngi koy seeral mbo mbooloo mi fi teew yëpp di ko seeral suñu kilifa gi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di aji mambusu di sàkku tam mu ñaanal ñu ba ni ñu fi dajee woon daaw dajee ko fi ne ren ñu daje ko fi ne déwén te déwén dàq dàq at yi weesu yëpp ku fi ñëw itam yàlla def nga bañ fi daal benn feebar ku fi indaale feebar nga ñaanal ko soxna si ba yàlla wéral ko ku fi indaale ñàkk itam nga ñaanal ko buy ñëw yokk ndax yàlla yàlla rek mooy may te jàpp nañ ni boo ko ñaanee suñu borom mën na koo nangu kon nag ñoo ngi koy sàkk ci yow di sant di la gërëm ak sa taxawaay itam ci wetu suñu Abdou Samad rafetlu nañ ko lool ndax saa yu suñu Abdou Samad amee bis rek man sama xel lay dal ndax buñ séenee dañ la ci gis jamono ji nag nit ki boo dee kilifaam la tax nga nekk kilifaam da ko koy wan ndax boo toogoon sa kër ñëwoo ci itam sëñ Samar du jàmbat du def dara waaye boo ñëwee ci wetam xelam dana gën a dal xam ne lim nekk jub na ndax bu jubal woon doo ko ci bàyyi kon ñu ngi lay seere lool di la ñaanal di ñaanal sëñ Abdou Samad di ñaanal mbokk yi fi ñëw yëpp ak ñi fi teew ñëpp ak ñi bëggoon a ñëw te ñu ndax ñi fi jaar ci mbooloo te taxaw tooguñu kenn xamul nu mu toll ndax sëñ Samar yow yaa mel noonu doo tàngam lu bisu kenn ku xewle nga dem kon nag soo xewlee itam ku ne war na fee ñëw te kenn ku fi ñëw itam ba jëmam rëy pour mu ñëw seet si la amul ndax yeeyoo nga maa ngi ànd ak suñu dan mu suñu Cheikh Xadi mi ngi nii toog ànd ak suñu Abdourahmane suñu Mour Mbàkke suma xarit mi ngi nii ànd ak soxnaam Alaaji Góor si laa nga bokk ci kër gi Babacar Mbuub démb mi ngi woon Daaru Musi doon wax jumaa doon waxtaan ci Alwafa démb ci jumaa ji eh, ak suñu Sidi Diagne ak suñu Sidi Gueye ak bokk yi fi teew yëpp li fi teew lépp ci ay nit ak li fi jaar mëne su la lim yëpp boo limee rek faaw da nga fàtt waaye képp koo xam daal mën naa ñëw fii te amul benn gàllankoor teew na fi suñ si di jan ñëw na fi suñ seex neeñ bi mu ñëw ba coon ni suñ seex jan bi mu ñëwee laa la koy laaj soxnaam bi mu ñëwee ni daal ñëw ba coon otom am jafe-jafe waaye xam naa lu gudd gëdd dinañ fi ñëw waaw waa kër Sëriñ Abdou Latif jëpp a ngi fi eh, sëriñ bi daal ñoo ngi ñaan daal jataay bi yàgg lool te ñun bu ñu sañoon saa yoo geesoo rek ak loo mën a xewle rek bu dee bànneex ak naqar ak loo xew loo xewle rek bu ñu sañoon boo boo geesoo gis ñu waa kër Serigne Massamba itam ñëpp a ngi fi ñoo ngi sant ñëpp di siyaar Serigne Moussa Massamba mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Massamba di siyaare Serigne Cheikh mi jiite njabootu Serigne Modou Faty Khary di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen wér ñu yàgg ci kanamu njaboot gi yàgg jiite njaboot gi te teg leen ci yoon wi nga xam ne moo taxoon Serigne Touba boole leen ak ñoom di gépp kilifa diine gu ne ci réew mi ñu lay ñaanal la taxoon suñu tubaa boole sa mbooloo nga teg mbooloo mu ca yoon woowu ba bu ëllëg bu ñu dajeeg suñ tubaa kilifa gu durus mbooloo mu du durus jamono ji nag sëriñ Abdou jàpp naa ne fi mu toll soññee jot na ndax suñu yoon wii kat mbir a ngi ci am moo xam ne miinoo ko woon ci yoon te yaakaar naa lu ma ci wax rek xam nga ci dara Babacar mais xam nga ci dara xam na ci dara ñoo ngi waxtaan yoo xam ni ci ay jamono kenn ñi mu ko def ci yoon te jàpp naa ne du luy du luy defar lu yàqu te suñ Tuubaa mbirum war la yàqu mën naa yàqu nag ndax suñ bi dafa defar ba pare bu defaree ba pare jox ñu nag ñun ñu ko yor buñ buñ seetaanee ba mu yàqu suñ responsabilité mais suñ bi amu ci responsabilité kon nag suñ bi nañ gën a saytuwaat yoon yi bu baax a baax ñi ko war a saytu nga xam ne ñoom la nit ñi déglu bu ñu waxee ñoom la nit ñi déglu nañuy wax nit ñi li nga xam ne yàlla ak yonent bi sëriñ Tuubaa loolu lañu bëggoon fa lañ jaaroon fa lañ jaare woon ñi leen topp ndax suñ ma sàmba mi nga xam ne tey mën nañu dëkk bii ab dëkk dëkkam wala nga dem ca Daaru Musi dëkkub maam Thierno Birahim wala beneen cheikh bu fi Sëriñ Tuubaa defar ba boole laa mbooloo ñu topp la mbooloo même amul lenn loo xam ne moo taxoon mu boole laa ñoom loolu nga liggéey la leen tarbiye leen teg leen ci yoon woo xam ni ci ci la ñuy jaamoo yàlla jàpp naa ne tam keneen ko def loolu tam bu ëllëgee mën ngaa mere sa bopp wala nga mere ki la toppoon te Sëriñ Tuubaa an andu ci kon nag mbooloo mi nañ gën a góorgóorlu bu baax ci ci xàmmee ak ràññee ak jéem a jéem a jëf ndigal yi ndax moo ñuy jëriñ fii moo ñuy jëriñ fële xam naa li ci des Sëriñ Sama dana ko développé développé ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm itam euh, média bi fi teew ñëpp ñoom na fay ak ñi ñu àndal ñëpp Bichri ak ñi yore communication te teew fi ñëpp ànd ak suñu Abdou Samad ci liggéey bi presse bi yëpp suñu Abdou Samad dana leen gërëmal boppam waaw bisi al azhar ak lamp ak yeneen yi fi teew yëpp ak euh, presse écrit ñëpp ak Pape mi nga xam ne tam euh, dafa jóge Dakar ñëw uniquement siyaare suñu Samad ni ko damay dem jaar soxna Bal nuyu ko waaye damay dellu Dakar waaye bis bi mën na mën la am te jógewuma Dakar teew fi sa wet ànd ko yow moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm man damaa jàpp ni ku fi ñëw rek wala lu faay def mën nga ko defal ndax maag suñu Abdou Samad duñ ñaari benn lañ sama rakk yi ma àndal xam nañ loolu tey ni ma programme woon yëf yi xat-xat yi am na ñoo xam ne cinq heures ba léegi ñoo ngi kër bàyyi si xat di xaar togg ay ndog jógee njaareem ba fi mu toll su ma demul dañ man leen nag damaa bis boo xam ne itam mooy bis bi nga xam ne moom laa gën a fonk at mi muy bis suñu Abdou Samad saa yu amee bis bu dul màggalu Daaru Muxti bis bu mu woote mën na maa wuy ci te sama diggante moom la contrat la bu ñu signé mën a moom ndax léeg-léeg mu ma nekk ci ay xat-xat woo ko Dakar ni ko demal defal ma nangam te du gànn même bu ko dana ko def kon nag loolu ay kàddu yu seere la rek ndax nit ki bu ngeen di ànd itam eh, la tax ngeen di ànd ni ñi war nañ ko xam dañoo ànd ci dëgg ànd ci bokk ànd ci juboo bokki xalaat te su ànd te yàlla rek tax looloo ñu ñoo ngi sant ñëpp aji maam sa nga ñaanal mbooloo mi baax yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfeex defal ñu wërsëg defal ñu xéewal tam yu ñu mën a eh, dunde te tam ànd ak nag garder suñu ngor ndax bari xéewal taxul a gore mën ngaa yor àddina ak li ci biir te saa yoo xëyee <laughs> gën a goreel kon nag nag ñu ñaan yàlla defal ñu ngor gu mat sëkk ci barke Sëriñ Tuubaa samiil aliim min ash-shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi mbokku taalibe yi may leen noonu sàbbaalati sunu borom subhaanahu wa nañ àndandoo julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ ko wax ni ma ko baaxoo di waxe yëkkati suñu kàddu ci kaw jëre jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa sëriñ Touba xaadimu rasulillah comme ni ngeen koy faral di déggee ci samay wax dafa nekk baat bu woyof ci kaw te di gann ak baatin mooy jërëjëf sëriñ Touba comme da di faral di dégg ma di ko wax sama xal di dem ca jàmbaar ju mag ja ubaydu rabbihi wa ibni cheikhi sëñ Abdul Ahad bu ma saan wax ba dënnoom tàng mu ne nun murit buñ dee gor waaye cay buñ dee gor war a wéet kenn du fa nekk kenn du seere ñu yëkkati suñu kàddu sant sëriñ Touba kon murit li war a jiitu mooy jox sëñ Tuubaa wàcc te mënuñu koo jariñ ci dara lu dul yëkkati suñu loxo ni jërëjëf sëriñ Tuubaa bu loolu jàllee Cheikh Abdoul Ahad daf daan wax ne mbir mu ne ñu ko bokk dañ ko war a waxtaane takk ko newu say wala duñu ko jariñoo lislaam am nay faron fu ne ci àdduna mu am l'islam bu Serigne Touba réhabilité te moo di muridullahi mu nekkoon lu ñoŋ mu nekkoon loo xam ne genn kàddu rekk la doon doxe mu nekkoon loo xam ne fu caaxaan jóge boo ne murit ñu génn ci ndax xam nañ ne murit amul ci caaxaan fii may waxee ak yéen nag muridullahi li sëñ Abdou wax léegi na ngeen ko jël au sérieux mouridisme bari na lu koy offensé bari na lu koy menacé bari na lu taxaw temm ci luñ xam ak ci luñ xamut pour xañ crédibilité muridullahi mi nga xam ne Serigne Touba moo liggéey yoon ba yëkkati loxoom ca kaw nezimam wara asri la dallahi fi yadi kon nun ñiy njabootu Serigne Touba muridullahi bu doonum réew muñ war a défendre soldaar bi ko war a défendre ñun muridullahi lislaam bu doon dëkk bu ñu war a défendre soldat yi ko war a défendre mooy ñu tudd muslim te ki ci jiitu mooy ki gëm Serigne Touba ñu koy wax muridullahi lii nag lancement la bu ma leen di jox comme sëñ Babacar dana waxtaanee muridullahi ak communication am na part bu mu ci mën a tudd waaye man danaa dellusi si largement wax ci wax bu yaatu ñu xam ne sëriñ Touba li mu liggéey li mu xàll mënuñu koo xàll waaye suñ jom mooy ñu préserver ko ñu téye ko ba buñ dajeek Serigne Touba du ñu sëgg ab tàmbali la nag waaye buñ doxee ba ci kanam danaa ci wax wax bu yaatu danaa ci dellu ci loo xam ne day dëppook ndigalul Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mi nga xam ne mooy sëriñ Touba nag maa ngi sant di gërëm ñi fi teew ñëpp duma ci dellu si ni ko sëriñ di waxee ki nga xam ne moo ñu ñaanal bala ñuy tàmbali ci bëccëg muy sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Qadir te at mu jot mu def ko ñëw teew fi joxe alalam wax fi kàddu yu daw yaram def na ko tey yal na ko fi yàlla yàggal mu yàggat wax ci turu xalifa général des Mourides waaye nun murit ñu am jom ak fulla ak fayda ba lim ñuy wax ci turu sëriñ bi nag ñu di ko jëfe aji mam sa ni lay sant di gën a toroxlu ci sa kanam di la gën a jébbal sunu bopp ni ko sëriñ Abdou sama magi bopp ji waxee ji la ma way jur wa waxoon ci yow saa bu ma xëyee di ko gën a gis sa maam sëriñ Touba bu fi dellu si woon nii ngay doxe mënta yokk yal na la yàlla jàppale yal yàlla taxawu njaboot gi et surtout yal na leen yàlla lafal ca maa ngi nuyu ñëpp nag du ma tuddaat kenn ku sama rakki bopp soxna Aziza mi agsi léegi ñu ngi lay sant sa teewaay bu remarquable bi bu ma fi nekkee bu ma fi nekkut yaa ngi ci gannaaw soxna moom yi toog ci kanam njaboot gi yàlla na la yàlla fay maa ngi sant Serigne Cheikh moom sëñ Modou Fati Xari Serigne Moustapha moom ma sàmba et ki nga xam ne mooy lépp nag di Serigne tubaa muy sëñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér képp ku yëkkati sa kàddu ne jërëjëf sëriñ Touba yal na nga am li nga bëgg jërëjëf sëriñ Touba dama ne wax leen ko ca kaw ba fam mën déglu leen ma dama ngeen ànd ak man ngeen yëkkati seen loxo ca kaw lu ngeen di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba dégguma ko de jërëjëf sëriñ Touba. boobu na jërëjëf sëriñ na ñëpp ànd ak teewlu. jërëjëf sëriñ Touba. na ñëpp ànd ak teewlu ak dal ñu diglu sëñ Babacar Mbuub mu ubbi conférence boo xam ne nii ci mouridisme ak communication lañ koy def Xaadim Fay Safar moo koy modere waaye le temps que conférencier bi di jël place Seydina Aliou géey dana soññee ci taalibe yi et surtout ñi màcc jëm ci ak bayfal ndax yàqit mu ngi dugg foofu ndax ñiy tuddoo sëñ Cheikh Ibra di def lu naqari yàlla du ñu julli du ñu woor te la taxoon Cheikh Ibra sañ ko xamuñu ca tomb ñi ngi bëgg a tas yoonu Serigne Touba kon Seydina Aliou Gueye dana modéré ci loolu pan dix minutes pendant Babacar di tàmbali conférencier bi nga xam ne safar moo koy modéré. ak ñi ci war a intervenir ak ñi ko war a commenter ñëpp ñun ñu ngi fi toog ànd ak yéen demuñu fenn kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kalimati almusharafati wa nuuriha xata akunu min addaxilin fi qadrata xusiyut miman yuxibunaka mahabatan zatiyatan wa tanbutu biha almahabatu walmaarifatu fi araadi qalbi wa jazbatu anqaaruha nuuru samaaika wa sifaatika in jazaba biha ilayhi raqaihuna in jazaba alxadidi lilmagnatis wa yansadhu fajru layli alxayni fi afaq tanazulati ila ansaar al awalu axiran wal batinu zahiran yaa awalu yaa axiru yaa batinu yaa zahiru barkeb sëñ Bamba ak Seex Ibra ñu ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taaliba yëpp xanaa waxtaan wi moom dañ koy tënk rek la ma ne waxtaan moom dañ koy tënk rek ndax Euh, yàlla dogal na sëriñ bi indi na fi boroom xam-xam bu mag boo xam ni ñëpp xam nañ ko réew ci réew mi muy sëñ Babacar nga xam ni ñu ñaan ci jëmmi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall ñëpp toog kenn bañ a dem su ma tënkee ba noppi ñu jox ko kàddu gi ñu déglu ko ndax lii dafa ci jamono ci jamono ji ñu toll nii di jéggu di siyaare kilifa fi yëpp sëriñ bi am na kilifa boo xam te ne xëy na bett na la teew muy sëriñ Sidi Gueye di waa kër Cheikh Adama Gueye ñëw na fi léegi teew su ko defee maa ngi siyaare ñëpp di siyaare jëwriñ yi ma booleel ñu àndandoo liggéey bi di ci jiital Yaxya mi nga xam ne mooy jiite xaar yàlla di ci teg aadama Dumbiyaay di ci teg jëwriñ Tamsir dégg nga ñu ngi jéggul nag soññee bi dañ koy tënk rek ndaxte boo xoolee li eh, wax ji bari na coow li bari na eh, te tam bi sëñ Babacar war waxtaan ñu ni mouridisme ak kàddu boo xoolee jamono ji li ma Moussa Kane kuy ñëw ta fasoo wëñ nga moros ma jagat yi te loo jëful yàlla ak doo ca am yool te sa jëf ja dina suulu ñu ne ko lu tax mu ni ndax yàlla karim la buur du fay lu sellul kon na ngeen di sellal seen jëf tey daw lu yellul jëf te yàlla tax moo fi yombatul moo fi nekkatul léegi léegi jëf te yàlla tax moo bareetul léegi ndax ki nga xam ne danga war a jëf te mu tax soo ko xamul nooy jëfee mu tax kon suñu borom ba mu ñu sàkkee bàyyi wuñu ak suñu bopp dafa ñoo sàkk orienté ñu teg ñu ci aw yoon ba mu ne wa maa xalaxtali jinn wal insi ilaa li yaxbudu nii bindu ma nit ak jinne lu ñu jaamu ma wax nañu fan la ñuy jaar ba jaamu ko ba noppi léegi nag boo xoolee ci jamono ji ñu toll nii naxaate gi ak jeyante gi ak ñàkk waxante dëgg gi dafee bari ak di jël aaye alxuraan yeeg xasida sëñ Tuubaa yi kenn ku ne di ko firee noo xam te ni moo la intéressé bañ koo firee ni ko sëñ Bamba bindee ak ni mu ko waxee ak bañ a firee alxuraan gi ni ko yàlla waxee ndax kenn ku nekk yaa ngi xool sa intérêt boobu kenn ku nekk booy wax yaa ngi xool lu yokk sa mbooloo kenn ku nekk yaa ngi xool lu sa kër gën a yokkoo jëfatuñu te yàlla tax ni ma koy faral di waxee ñun ay doomu aadama te nit dafa am valeur nit dafa am valeur yàlla nit la wàccee ci kaw suuf mu di xalifaam ba pare dëkk ci nit ni man génnu ma nit lu nit am nit a ko koy jox ku xiif nit a lay jox nga lekk sooy liggéey ñi te lay jàngal métier ba nga am kon nit ki bu wàcc àdduna dafa am fu muy bawoo ci yàlla lay jógee jaar ci nit wàcc kaw suuf war a delluwaat ci yàlla war a jaaraat ci nit dem dem ci yàlla kon soo waree jaar ci nit ngir dem ci yàlla dem ci nit ke li ko aslamtu nafsi mu dox sa digg yàlla àggale wala ci yàlla problème bi foofu la njëkk a commencé Sëriñ ba muy ñëw ci àdduna ak natt yi ba mu koy dal suufi islam moo taxoon kon dafa dem suufi ji islam ba ñëw jël islam teg ko suñu loxo jël islam boo ko fowee kon lan mooy islam dañ sariya yi yoon la islam dëkk la mi mel na ñu ni paaka ak ponk bi ak ñaw ka bi da ngay jàpp ci ponk bi di rendee ñaw ko bi waaye nit ñi léegi dañ koo dëpp di jël fii rendee téye ko di rendee fi ñu war a jàpp seen loxo yi dagg te duñu rendi dara loolu leen dal dégg nga ko kon dañoo jëetu dëgg-dëgg islam xamal ko nit ñi mën a def ko ci taalibe bi kon lan mooy islaam islam balaa koy xam da ngay ànd ak nitu yàlla ku yàlla gërëm ku àgg ci yàlla wa manta wasala bi waasilin wasal wa manta wasala bi ëhsilin fasal nit ki da ngay jokk ci ko àgg mu àggale la caa loola war a sëriñ parce àdduna bi tey mbooloo moo gis ñuy dem ay murit lañu wala ay tiijaan lañu wala ay xaadir lañu wala ay laayeen lañu kenn ku nekk groupe ba nga nekk fa nga bokk buñ la naxut àggale la ci yàlla problème du am ñàkk àgg ci yàlla moo tax cooy lépp am ndax yàlla kenn la du ñaar du ñett dégg nga chrétien ba taxaw ci église ba nii la yaa dafa dàq lu yàlla saxal fa yàlla musulman ba taxaw ci jàkka ja nii laa ilaha illallah dégg nga ko dàq lu yàlla saxal fi yàlla kenn ku ci nekk ka xam ne moo dox sa diggante ak sa borom di sa kerkeraan bu la murilee kiiraay bañ la xañ sa yàlla ci yow rek problème du am ci àdduna bi parce que nga gis koo xam ni àggut tollut fenn li sëñ Sam Mbaye di wax tollut fenn àggut ñu jox ko micro mu taxu ci digg àdduna bi di wax ñëpp di ko déglu ba noppi gëm ko fees dell bu wax nit ñuy yuuxu te àggut ci yàlla xamut yàlla xamut fu muy jaar ba wax nit ci yàlla parce que dama ni saa su ne ma di ko wax gis nga jëmm armée lii nga gis nii ñu fay ñu fay rob doomu aadama jëmmi doomu aadama màgg gi màgg li ñu ko tëggee mim xaandeel mim deel moo tax ñu koy wormaal bu nit faatoo ñu jël jëmmam ji suul ko ci armeel mbalit mbalit bu la mbalitu jëmm la gis nga alxuraan dafa ni muutu xabla anta muutu dee leen balaa ngeen balaa dee di ñëw nit ki nooy dee balaa di ñëw déedéet dellu leen ci yàlla balaa ñu di delloo ndaxte yàlla bi mu lay wàcc ci ci àdduna ci kaw suuf dalaa wàcc ngay dund kon munoo xaar ba dee nga ni da ngay dellu ci yàlla da ngay nit ñu ñu koy jébal Serigne Touba na leen koy jébalee nit ki ci ba ngay dund lañ lay jébal Serigne Touba nan la lay jubbalee sa jub bi ngay dund yaa dem ci sëriñ ko aslamtu nafsi li waj illaahi kon ci maa ba ngay dund lay dàq boppam dàq lut yàlla wan la yàlla bu la ko defut boo dee mu nga doon médd ñu teg la ci kanam nga jiite te médd du mu taxaw ni laa xawla kenn amul doole wala xuuta kenn amul kàttan illaa billaahi ko dut yàlla wala tax ba ngay dund dàqal boppam dàq la wana li fi nekk muy yàlla mu waay ba nga faatu mu dégager responsabilité am teg la ci kanam dal lay jaxase ak yàlla dégg nga ko kon ci bi ngay dund la dëgg dafa neexut dëgg dafa neexut moo tax sëñ Tuubaa ni xultu wax naa fa jiilu mi ngay ñëw xultu wax naa fa jiilu saa zamaan yi waa ngay wax ak maasug jamono jaahilu ilman su fen xaran amalo mu ne is jaahilu bi kaw kawnihi sabila li xudratulaay fa xaabu ji la xam nga bañ maa ngi doon wax wal asri inal insaana la fii xusrin ay ba mu wàccee wan asri ñu ne giñ naa ci tàkkusaan ñii ne giñ naa ci jamono inal insaana naka nit ñi la fii xusrin way perte lañ ba ko saxaaba yi déggee dañoo jooy bi yonent bi daal di daxal dajee saxaaba ñu lan la ñu ne ko aaya saar yu moo ñu tiital mu wax kenn ci saxaaba yi na jug tari saar bi bi muy tari saar bi ñu ni wal asri jiñ naa ci tàkkusaan wala jiñ naa ci jamono inal insaana naka nit ñi la fi xusun wa perte dañ yonent daan ni abu jahlin a ngoog ak ku jëf jëbu jëfu abu jahlin yow yaay yow yaa perte mu ni illa lazina amanu lu dul gaa yi gëm mu ni Ababacar Sadiq jugal taxaw képp ku bëgg ti gëm na nga ko rey ci Ababacar Sadiq wa amiloo saalixaat tey jëf lu sell lu yiw mu ni Seydina Omar jugal taxaw wa tawaasoo bil xaq te ngeen di dénkante dëgg mu ni Seydina Ousmane jugal taxaw watawaa ah, bi bi sabri te ngeen dénkante mu ni Seydina Aliou jugal taxaw gis nga ñooñu képp ku jëf seen jëf am melo yooñ meloon am melo yooñ meloon boobu bi suñ doon yan u anil xal bi yu rayon xat danisoo maxamal mu asli an saw bi najaa bi ci seen xol rey nañ tilim mu asli an saw bi najaa saati ba mel ni gi jël am sobe di ko fete kon sëriñ ma sëriñ nooy def taalibe mu ne ula ekkal xaw mu yooyee la gaa la yasxaa doo taxewa di jaari kuy toog ak ñoom ñu tax mu ne is ngir yàq ñu ngay fàggul al muride taalibe yi saadaatin texe kon ñoom lan lañ yoroon ba toog ak ñoom ñu fàggul la texe parce que lañ defoon ci ñoom ba ku toog ñu fàgg fàggul texe moo rafet la ci jamono moom la sëriñ defatul ci taalibe ba taalibe ku toog ak mu fàggul la texe dégg nga ko kon loolu moom la Cheikh Ibrahima Fall toppoon sëriñ Touba dégg nga Cheikh Ibra Fall tëbul tëb rek bàyyi julli bàyyi woor dégg ko dafa topp sëriñ bi sëriñ bi gindi ko ci laa ilaha illallah xamal ko julli gu amul sëlmal dégg ko kon sëriñ boo topp bu la mënta gindi ci laa ilaha illallah wane la julli gi amul sëlmal da ngaa di julli di woor ba ba soo ko deful tooñ nga Cheikh Ibra Cheikh Ibra nee na man musuma buñ ma tuumaal néewu ma kenn bu mu julli bu ma woor dégg nga yàlla dafa maa bu ma ñëw mun la mun na Ibra Fall amee la mun la benn julli amee lu ma borom woor yaa ko ànd loolu waxin la déggin la laaj sëriñ mu mbër sëriñ day tarbiya taal taalibe ndaxte islam yàgg na fi ndax yonent bi 40 ans am ñu nekk bu nekk prophète muy woote ci islam di woote ci islam ba am 52 ans julli door a wàcc waa diggante 40 ans ak 52 ans la moo doon islam kon yonent bi jullul woon sëriñ mu mën sëriñ nga koy xam xamal ko taalibe su ko defee problème du am dégg nga comme que nag tey bis bi dafa am kuñ woo fii tey mu mu war a mu amee conférence bi nga xam ne moo war a conférence kon duñ rek te xam ni la fi nekkoon démb moo fi nekk tey dégg nga ko sëriñ Saliou am na ku ko mas ni ndax lañ daan defal mag ña dafay amatul mun ko ankay am na fi ba léegi loxo ba ko daan defee jugu fi ku jëf lañ daan jëf moo fi jafe dégg nga kon nañ leen ni yeewu yàlla ñaari baat ñu wax ci alxuraan ni fan tabi na ngeen yaa ulal baa bi yéen borom xel laay waxal Sëriñ Tuubaa lu mu wax daan ni fan tabi yeewul yaa rajo la sax ku nit da ngay yeewu dégg nga ko da ngaa amee nday amee baay sa sa waajur ëmbale neuf mois juróom-ñeenti weer benn bis bi delsi nga bëgg a nga bëgg ko faat mu lay wasin dégg nga ko nga xëy bis ni ko nday déyotoo ma bàyyi déyotoo ma dem ci bàyyi jàmm ni ko yaa ma am na lu tax la tax na ko def ci yow su ko mënta def ci yow ba ko nga seeti sëriñ boo xam ne nii mën na laa tarbiya tarqiya la tas yàlla àggale la ci yàlla loolu rafet jamono ji faawaate ak ñeewaate ak alal ak koom-koom la ñuy toppee sëriñ léegi waaye du yàlla c'est très rare nga gis ku gërëm doom ngir jaamu yàlla dafa dafa nangoo jaamu yàlla c'est très rare nga gis ku gërëm doomam ndax dafa laxasaayu uti sëriñ bi si ngeen àggale ko ci yàlla sama doom ji ni mu suturaalee lim ma defal kër gi ma génn rek la ñuy taggee ay ay ne gërëmatuñ benn doom ba ci biir kër doomi bàyyi sax kii jël alalam di jox baayam sax kooku la ñuy gërëm faale wuñu ko jaamukatu yàlla crise boobu mu am ci jamono crise wala borom xam ne war a jël wax ci yee taalibe yi fépp ci tarix yëpp laa wax nag sëriñ boo topp bu la mënta àggale ci yàlla bàyyi ko ndax sëriñ baa di sa saytaan nu nga ko nekkee ndax ki dox sa digg yàlla àggale ci yàlla kooku sa saytaane di dégg nga ko kon ñu ngi jégg lu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp وما توفيقي إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه منيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yu tedd yi bokki taalibe yi noo ngi leen di jotal nuyoo ba gën a jot mooy nuyoo lislaam di leen ziar yi tam di leen ndokkee leen ndokkeel itam ci taxawaay bi di baloo xaq di bale xaq itam nuyoo boobu nag ñoo ngi ci jiital kilifa yi nga xam ni ñoom la yàlla dogal jotaay bi jaar ci ñoom sëñ Abdou Samad ak kilifaam muy soxna si di leen ñaanal suñu borom jàpp ndal leen ngërëmam te jàpp ndal ko njaboot gi yépp jàppandal ko itam mboolem taalibe yépp ak fu jullit mën a nekk di nuyu bu baaxit sëñ Abdou Mbàkke mi nga xam ni mu ubbi jotaay bi léegi ak mboolem bokkam yi mu àndaloon yépp di nuyu it mbooleem kilifa goo xam ni rek teew nga fi ci jotaay bi ñoo ngi lay nuyu saw tur ak saw sant te di la jox sa wàccuwaay di la ñaanalit di sàkku ci ñoom it ñaan di sant yàlla bu baax nag ci jotaay bi yàlla may nu nu fekke ko te fekk na képp ko fekke yàlla moo la fekkeloo yàlla nañ ko yàgg fekke te sunu jëfi tey jii ak taxawaayu tey bii ak yay xal xalsata ñëw ëllëg ak yañu weesu yépp di mbégum yàlla di ngërëmal suñu borom subhanahu wa te ngërëmam loolu ak ngërëmal yonent bi mooy ngërëmal Sëriñ Tuubaa rek loola danañ ci dikk léegi ci waxtaan wi insha allah rabbi thème bi nag di sant bu baax waa daayira bi xaatimatul munaajaat bil xat ñuy suñuy wëllëre seq lu baree bari seen taxawaay am solo lool ndax seenu liggéey lu ci bari ñoo ngi jéem kenn seen kattan di ko teg ci xam-xam ndax sëriñ bi li muy def daa ko def lu lépp it xam-xam la ci daa jiital ba tax na su fekkente ni neneen rekkit jóg jiital xam ci xam-xam ci suñuy jëfit loola dana rafet lool njort képp koo xam ni dana mën a njort ba tax na yàlla na suñu borom yeggale te dajale ñu ñoom tawfeexu sëriñ bi tem bi nag tem bu thème bu riche la ndax su fekkente ni dañoo bëgg a waxtaan ci muridisme amma jëmmi muridisme doon lu yaatu loo xam ni dañuy tànn ca biir message yu Serigne Touba ak nag communication nga xam ni moom jëmmi sëriñ bi am na loo xam ni moom la jëf moom la wax waaye moom la wane loola nag it ngir am jublu goo xam ni moom la amoon ak yitte joo xam ni si waxtu wu nekk moom la àndaloon teloolit mel ni dafay am jeexit ci mbooloo ma nga xam ni ñoom ñoo ko nanguloon moom moom Cheikhul Khadim loola nag su fekkente ni mënees naa jàpp ni loolu mooy muridisme muy am mbooloo moo xam ne dañoo maase gëm seen boroom maase it ci laxasu rek mel ni dañoo jataay ak seen boroom mu ni leen fii lu fi waay mën a indi bu fekkente ni ngëm gi ngeen di wax dëgg la sàkku leen sama ngërëm ak ngërëmal sama yonent wallaahu wa rasuluhu ahaqun an yurduhu in kaanu muminin sëñ Ablaat nee na sëñ tubaab ba mu ne rëkkat yegg ca yàlla sax aaya bii la ko suñ borom wax dañu ko ndax jaar nga ca yonent bi mu ne ko déedéet mu ni ko def nga gaaw yeex xanaa xamoo ni fii lu fi waay indi te jaaroo ci muhammadu rasulillahi aw ma ci soxla man yàlla nee na ci la ma tegtalee yenent bi nag daal di may wax bii ni ma bu fekkente ni gëm gi ngeen di wax dëgg ci yéen sàkku leen ngërëmal yàlla akub yonent bi nee na ci laa nit wëlbët ni dallan yàlla wa ala muhammadin wa xaada li muhammadin bi samati kon nag loolu di lu am solo ci ndekete murit bi daal ndekete képp koo xam ni gëm nga yàlla tey sàkku ngërëmam di sàkku ngërëmam yonentam rek ndekete yow yaa ngi ca biir génnoo ci képp koo xam ni yaa nga ca loote te loolu it am na waxi sëriñ bi ju ko gën a firndeel ju ko leeral ndax mel na ni mas nañ koo laaj bis ni ko euh, kan mooy murid sadiq man huwa al muritu sadiq mu ni allazi yuridu wajha llah fi kulli képp koo xam ni buy jóg buy toog buy tëdd buy dem ca tool ya buy jàng alxuraan mbaa muy jàng xasida mbaa muy sikkar buy def euh, lu muy mën a def rek ci dundam nee na jëmmi yàlla dong dong dong dong tax mu def ko te yàlla rekk la ci jublu wutu ca leneen képp koo xam ne nee na tolluwaay boobu yaa nga ca rek na la wóor ni am murit saadix te waxi ku mën a doon nag bu dee nun murit yi moom waxi sëñ Tuubaa la gën a wér waaye loolu yi la sëriñ bi wax kon muy am solo ñu xamee ne kon dafa mel ni loolu ab yegguwaay la wuute lool nag ak li nu tàmbalee gis léegi nii danañ ci rek léegi nag moom sëriñ Tuubaa moomu li mu wane ak li mu jëf àndagoon ay mag ñoo xam ne nangu nañ ko ku ci nekk mu def ci yow la mu def ci yow te loola benn nit koo xam ni bañ nga sa bopp amut waaye mel na ni li sëriñ bi indi woon wane ko dafay mel ni nit ñi niñ ko war a xame xamewuñ ko noonu loola nag ana lan moo ko def ndax communication bi ñuy communiquer ñun ndax communication boobu matale na ndax communication bi ñuy communiquer ndax dëgg dëgg dëgg essence bi maanaam yuqub li taxoon sëriñ bi di def ca ña mu daa def la mu daa def ca ñoom ndax loolu it ba tey mi ngi doon loo xam ne ñoo ngi koy jàllale waaye ñoo ngi koy dundit waaye loolu ñoo ngi koy wasaale loolu yaakaar naa ni waxtaan ci lu lu lu lu am solo la lool eh, lu mat a waxtaane la itam kon dafay mel ni dana doon ñaari pàcc benn bi njëkk bi waxtaan ci ak murit ak dëgg-dëgg sax message yu Sëriñ Tuubaa ban message la maanaam ci ñaari fànn yi nga xam ne nag mu seq doomu aadama muy ci kaw ak ci biir bi lan mooy message am dëgg dëgg dëgg lu ci xaj rek ci waxtu wi ñu wax ko moom fa mu nekkoon ak li mu santaane lan la leneen la cay dolliku mooy ni jéem a jàngat ci wàllu communication ak euh, concept ak précepte yi nga xam ne si moom mooy euh, précepte clé yi ci communication dégg dëgg ñu jàngat ko xool est-ce que ñun ni ñu war di communiquer it ñoo ngi communiquer noonu bu fekkente ni xëy na am na ay fay yu ci nekk ñu jéem a am jàngat yuñ ci def it ak ca mujjanteel ga nag jéem a indi ay recommandations yoo xam ni warees na koo jël en compte pour Serigne Touba ni mu universel son message universel ñu jéem a universaliser ce message la cest loolu moom mooy jublu dëgg dëgg dëgg dëgg waxtaan sëriñ bi wax nañ ko léegi bu ñu dikkee ci tomb bu njëkk bi ni message am dafay mel ni le plus souvent murit yi kenn ku ci nekk ak noo ko dégge ku nekk ak noo ko déggee fi mu ne soo jëloon junniy murit kenn ku ci nekk ngeen ko kuy sëñ Tuubaa ku nekk nam la koy wax loolu rek déjà lu problématique la maanaam kenn ku ci nekk ak sa sëriñ Touba kenn ku ci nekk nu nga dégg sëriñ Touba dafay daal di mel ni kon euh, uniformisé wuñu loolu uniformisé wuñu dafay mel ni kon kenn ku ci nekk rek mën ngaa jàpp sam sëriñ Touba na nga ko déggee nga déggee ko ni loolu nag li muy mën a indi rek mooy boo doxee tuuti ci ëllëg da nga daal di gis kenn ku ci nekk mbooloo dikk ca loola wala so ca loola su ko defee loolu lépp ñu ni ci sëriñ Touba la te amaana mën naa am lépp du du ci sëriñ bi kon ak murit ak murit wax naa ko léegi ni dafay mel ni képp koo xam ni gëm nga gëm nga sa borom subhanahu wa taala rek te boo delloo ci sootul muminin da danga ca xam lu leer fukki laay yee njëkk yi rek danga nga ci gis lu leer lu ko tekkale loolu benn la ci nga gëm ni da nga ci sa borom bis ba yooyu nga xam ne si yëpp moo aju ci ci ci wàllu ngëm hmm? wa anna lasi jaaha bi sayyidina muhammadun xaqun wa na jannata xaqun wa anna naara xaqun ila yi ba mu yegg yooyu yëpp képp koo xam ne si gëm nga ko rek moom sa ngëm wér na léegi nag dangay doon koo xam ni ku futtiku di sàkku nag sàkkootoo sax dëgg dëgg dëgg dëgg ni mankat kat damay sàkku àjjana kese sàkkootoo dëgg dëgg dëgg it ni dafa am lu may sàkku nit sama borom rek waaye ngërëmam rek nga soxla yow fi mu nekk nii ngërëmal suñu borom maanaam borom bi nga xam ni moo bind lépp di rabbi kulli shay'in moom nga jóg di sàkku ngërëmam li nga xam ni kub xolam seddul ci yow du la ko jagleel te loola nag doonut loo xam ni lu yomb la doonut loo xam ni it dee siy jóg nii rek dàccee daj mu dëppook laay bi ma waxoon sànq léegi nag murit bi dafa am ñaari tànk yoo xam ni faw mu koy doxe faw mu koy doxe benn bu njëkk bi mooy gannaaw ba nga xamante ni xam na ay farataam gannaaw bi nga xamante ni xam na it li nga xam ni moom lañ ko digal lay atte ya ñetteel ba it mooy mu taxaw ci nag di jaamu boromam jaamu googu nag bu ca taxawee doxub diir dana daal di gis ni fa saxaba ya toll woon rek moom it dafay yëg ni toll na fa ndax mi ngi def ndigal li di jëm bàyyi tere yi kem kàttanam waaye mi ngi nemmiku ci biiram di nemmiku ci boppam mu leer ko ni mi ngi yëg ay ragg ràgg yoo xam ni wóor na ko ni lii day mi ngi góorgóorlu kem kàttanam waaye lii ay tawat la yoo xam ni des na ci moom ba tey foofa nag la saaba yi toll woon ne yonent bi ñun daal li ñu bëgg mooy jaayante yow ndax ku mel ni yow mii nga garanti ñu danañ am àjjana yonent bi neen awma tontu ci loolu ki amee tontu li mooy suñu borom suñu borom joxe tontu li inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiroo bi baahikum lazi baahitum bihi wa zalika huwa al fadlu al azim ñoom nag ba nga xamante ni kon yàlla jënd na ginnaaw moom moom lépp sax moom waaye ba ñu gëmee yàlla jënd na seen bakkan ak seen alal ngir nag àjjana jan doon sàkku waaye nag ci kaw ñuy rey ak ñu leen di rey bi ñu xaree badar nag ñu éprouvé leen ñu dëggal la waxoon dafa mel ni suñ borom nag yonent bi daf leen xamal ni yéen nag xare bu ndaw bi def ngeen ko xare bu mag bi nag moom mooy xare ba gën a jafe mooy bi nga xam ni moom mooy waral bi sëñ Tuubaa taxaw jaar ci ba yëkkate raaya bi lislaam am ndam waaye woote ca ngir moomee mooy jihaadul akbar ñoom bojjante nañ ak i jaasi bàyyi nañ ci seen bakkan rey nañu rey nañ leen waaye nag ba ñu noppee lañ leen ni xuddumtu minal jihaadil asgari ilal jihaadil akbar jóge nañ nag tey ci xare bu ndaw bi wala jëm nag ci xare bu mag ba xare bu mag boobu nag ci tënk rek nga xam ni bi nit ki tolloo ci ñett yi ñeenteelu étape bi nag bi mu yëgee lii mu daal di war a dem wëri yonent bi waaye nee nañu Muhammad ibn Abdallah gisatuñ ko ci kaw suuf ñu ni ah kay mission yonent bi du dog ndax suñu boroom daf ko yónni ci mbooleem mbindeef yépp wa ma arsalnaaka illaa kaafatan li naas kon su fekkente ni am na ku nekk ca Daaru Karim wala am na ku nekk ca Kédougou te yonent bi dikkul ba fa moom leeral ko message bi ni ko suñu boroomam a yónni te lii la ma yónni kon lan ko yónni defu ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw nag mënu fee nekk diirub jamono mënta ñàkk waxtu wu ne loola mu doon dox am ñoo xam ne ñoo koy dox mottalil ko dugg ci biir mission ba tax na kon bi Sëriñ Tuubaa dikkee ba tolluwaay boobu mu toll ci war a yeesal jihaad ju mag ji nag mu woote woote mbu rëy boobee mag ñi nangul ko ànd ak moom àndin wu rafet yu ñu àndi woon ba kenn ku ci nekk làq loo xam ni bëggatoo doon sa moroom maanaam lu am solo lu mat a préciser la mag ñi àndoon ak sëñ Touba amul kenn ku ci bëggoon a doon sa moroom amu ci ñi nga xam ni amoon nañ gërëm ñi sëriñ bi def ci ñoom ba noppi ci ñoom amul ku ci bëgg a doon moromam sëñ Abdou Lahad toog na fii bu ma juumut 1984 1986 euh, ni sëriñ Touba day képp koo xam ne jox nga ko sa bopp te bàyyee ko sa bopp. def na ci yow loo xam ne sii bëggatoo doon sa morom ndax war na la sa digganteeg sa borom war na la sa digganteek moom sëriñ Touba war na la sa bopp loo xam ne sii bëggatoo doon sa morom amul benn murit bu bëgg a doon moroom loolu nag lu am solo lu mat a xam lool yuq ba la mu daa def ca kooka ba dootoo bëgg a doon sa moroom loola mooy la mat a sàkku mu yëfi moo tax teg na ca kàddu goog kàddu gu am solo la. goo xam ne gu mat a bàyyi xel la te mat di def ay jàngat mooy sëriñ Touba lu ngeen mën a gis ci mbiram lu ngeen mën a gis ci mbirum sëriñ Touba di ko naw lu loola rëy rëy fa yéen du dara ci sëriñ Touba loola nag suñu jëlaatee wax ji càmbaraat li ñuy gis ci mbirum sëriñ Touba lu mu doon li bët mën a maye ci mbirum sëñ Touba lu mu doon sëñ Abdou ko wax fii ci pénc bi nee na lu ngeen mën a gis ci mbirum sëñ Touba di ko naw lu loola rëy rëy fa yéen du dara ca sëriñ Touba ma gis ni am na ñaari constance yu am ci biir wax jooju mooy li suñu bët mën a maye ci mbirum sëñ Touba kenn ku ci nekk jëlal bigg ak fëy nga tàmbalee énumérer bind li ngay gis ñu ne lii mbirum sëñ Touba la lii mbirum sëñ Touba la lii mbirum sëñ Touba la nga bind ba sa fay jeex nga liir ko liiraat ko daal di ub teg sëñ bi nee na loolu du dara fa sëñ Tuubaa kon li nu war a yittewoo te laaj ko mooy lan mooy dara fa sëñ Tuubaa lan mooy dara fa sëñ Tuubaa lay dara fa sëñ Tuubaa nag danga nga daal di gis ni lu gàtt gàtt bët du ca tege jëwriñ mi doon soññee fii léegi junj na lu mel noonu maanaam bët du tege ca loola sa bët bi mun la caa may dara te léegi nag. muy tug sinwaa gi gi xew dafa mel ni dañoo dañoo euh, safaane yëf yi dañ ko làmbeer dañ ko wëlbati mooy mel na ni léegi moom daanaka euh, li sëñ bi gannaawaloon la ñu fexe bam yaakaar ni mooy umay ak murid sadiq li sëñ bi gannaawaloon dafa wax ni su ngeen demoon samay dencukaay su ngeen demoon samay waxande su fekkoon te ni am naa compte en banque wala fenn fu may denc bu ngeen fa demee nee na la ngeen fay fekk dey téereb yàlla bi lay doon waxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadisam ak ay teggiin waaye du ngeen fekk mukk man cheikhul xadim ma dajale wurus wala ma dajale xaalis kanzul kitaabu wal xadis wal adab laa jamru siratun wala jamru sahab lii de sëñ tubaa ko wax nee na du ngeen fekk mukk man li may denc man sëñ tubaa di ko fàggul sama bopp du ngeen ca fekk xaalis du ngeen ca fekk or waaye nee na la ngeen fekk mooy téereb yàlla bi ngir li yàlla bëgg ak bëgg ñu koy def ci lañ ko santaane ki yàlla yónni woon it ci ñëpp na mu daan jëfe ak na mu dégge woon la ko suñu boroom doon defloo te daawul jëfe bakkanam daawul jëfe bànneexam kooko it nee na loola laay denc ngir man de roy ci moom ak lan li ma gis ni li nekk ci kaw suuf la ca gën mooy ay teggi sëñ Tuubaa nee na lii mooy sama alal kon nag gis nga ni tey dem nañoo dem ba yoon wi fi mu ne dafa mel ni geneen murit bu bees lañ bëgga a fent goo xam ni daanaka lépp mu ngi wëlbatiku ci alali àdduna te damay faral di wax ne bu fekkonte ni déterminant boobu maanaam baax na ñun ñii di murit de bala ñoo am dara tubaab yi am ba jeexal ba noppi ci yàlla ndax dafa am benn journal boo xam ne États-Unis la nekk dafa def gëstu ci ñetti téeméeri nit ñi ëpp alal ci àdduna bi mu ko gëstoo ba noppi ñetti nit ñoo ci dëkk Afrique kenn ki Nigéria la dëkk kenn ki dëkk South Africa kenn ki dëkk Égypte bi nu ñëwee Afrique nag def ab gëstu ci téeméeri nit ñi fi ëpp alal benn sénégalais bokk ci benn murit bokk ci téeméeri nit ëpp alal ci Afrique benn sénégalais bokku ci benn murit bokku ci kon bu fekkente ni koppar yooyu lañu foog ni mooy maye sëñ nanu déchanté nan déchanté sëñ Touba dégguñu fi alal ju bari jum yoroon ba tax mu ni lépp lu ma bëgg yàlla bëgg ko te lu yàlla bëgg ma bëgg waaye nee na bu ma bëggee yonent bi bëgg te lu yonent bi bëgg it bëgg naa ko la ko may du alali ay koppar loola mat naa delluwaat di ko di ko def xamal kon xëñ na loolu mënees na ko junj ci li ñuy tuddee ak murit wala ak taalibe muy baat boo xam ne nag ñu bari jekku nañ ko koo wax ñu ne la ak taalibe rek am solo waaye koo ci laaj lu ak taalibe amaana mën na la ko bañ a mën a leeral waaye ak taalibe bi mu weesoo ñetti étape yu njëkk yi ma wax te saxaaba yi toll woon ci ndax sëñ Tuubaa ko wax moo ne awalul waajibi alal muridi taxsilu zaadiha min tawhid kon nag li njëkk ci murid bi moom sëñ Tuubaa ko définir teg ca yam ca teg teg ca yam ca teg waaye bu tolloo ci ñetteelu station bi nag la wax ca moom mooy xam na kuy boromam mooy mi ngi jëfe ndigal yi di bàyyi tere yi xam na atte yi ñetteel bi mooy mi ngi jéem mi ngi jëfe te mi ngi nemmiku ci boppam ay xeeti ragg ràgg yoo xee xam na ni lii muy def mënu koo saafara foofa nag la war wëlbatiku dem wuti sëriñ bu matub sëriñ su demee wuti sëriñ bu matub sëriñ nag jaayanteeg moom ci ay conditions yi leer nañ xamal ko la ko tax jóg lu mu doon kooko it xamal ko na mu cay jotee la ko koy may lu mu su ko defee mu sàmmonteeg la mu wax diirub la mu fa war a def ba may mën a jot ca loolu bokk na ci boo xoolee Cheikh Abdou dafa waxoon ni ginnaawu jaayante ñett mën na caa nekk sàcc xàcc ak dëggal sàcc xàcc ak dëggal ci misaal tey boo demoon ci jaaykat bi ni ko damaa soxla kilo suukar mun la ñett téeméer la jar nga jox ko ñett téeméer yóbbu sa kilo suukar kooko dëggal nga ndax bàyyee nga ko la mu war a jël yow it jël nga la nga war a jël nee na su fekkente ni dangaa ñëw ni ko jaay ma kilo suukar nee na mu jaay la ba noppi nga fexe ba yóbbu kilo suukar yóbbaale njëgg loolu am na wutur am na wutur loolu mooy gaa yi sant Mbaye ak Cissé yooyu ñu def gaa yi sant waat ak gaa yooyu samay kal lañu maanaam fexe ba yóbbaale suukar sa njëgi suukar sa loolu am na tur moom wala yi koo ko fi laaj mu wax la tur wi la waaye nee na su fekkente ni da ngaa yóbbu kilo suukar ba ba yàgg del si ni ko delloo ma sama njëg te teel sa kilo suukar loolu it am na aw moo tax lu sensible la loo xam ni lu mat a xam la loo xam ni ajiwul ci ay waxi kese akuk taalibi rek am njariñ waaye xam lu taalibi ëmb it am na ci yaakaar naa ni boo seetloo abyaat yooyu sëñ bi def sax ci lu mel ni sifaatu saadixal murid yi bi ixtisaar gis nga arbahatul nazamtuha xaw faxtiraat sëriñ bi la muy dem ba koy ragal moo lay wax li lu mat ragal la moom sëñ Tuubaa ragal ngeen waru nee na moo tax ma bind fi abyaat yi bàyyi leen ko fi ba ngeen xam ak murid saadix fi ne màndarga yi lan la melokaan yi kon loola lu am solo la loo xam ni mat nay bàyyi xel li ma jublu woon a wax ci lool rek mooy nañu xam ni lay maye dara fa sëñ Touba doonut loo xam ni sa bakkanu bopp bi lay tege ak sa xalaati bopp rek ak it doxe ko na ko yëge ak na nga ko gise demewut noonu ñaareel bi tamit am na jàngat bopp su ma ko ci defee xëñ na mën na maa tëje bunt boobu sax pour dugg ci ñaareelu euh, tomb bi mooy moom sëriñ Touba rek ni mu jaare ci jihaat ju mag jooji sëriñ bi waxoon na ni noon yooyu ñeent lañu muy bakkan di bànneex di seytaane ak adduna waaye sëñ bi teel naa wax bu yàgg ni moom dëddu na àdduna te loola ku ko xam ak firnde yu leer am na ca ndax néewaane tey jii ku toog koo xam ni président de la république mën na laa yónnee ndaw ni la kaay doon sama conseiller wala nga doon ministre de la justice di ma atteel wala boo nga yor ëttu attekaay nga gàntal ko waxuma la mu proposé la lool waaye bu nee la audience képp boo moytul mën ngaa ba a yóbbaale daal na waaj a defoon da ngay abbu oto ab abbu yére yóbbaale waaye sëriñ bi ban ko waxee loolu dafa décliné loolu daal ni moom loolu yitteelu ko loolu xam-xam ak diine yitteelu ko moom sëñ Tuubaa loolu firnde leer ci ni moom àdduna yitteelu ko woon te it wane na ko gannaaw moo tax ba mu bindee ni ba la aqbalati dunya ilay qablu wa biqa wa dala ani qablu wa bada ani adbarat walam amilaha li kawnihi dar zalam ca lañ daal yi xam ni lii mu wax rek mooy li am wan na ko ginnaaw te dootu ko dootu ko geesu kon dëddu na àdduna la ca topp mooy lan mooy bànneex bànneex kenn mënta tàqali ko ak moom kenn waaye nag dangay fexe ba sa bànneex li neex yàlla rek neex la xawaanantahaa lil xaqi wal xaqu diinuna kon nag loola it gis nga ni def na ca kéem lam war a def ba suñ borom taw feexew la ko loolu ba lépp lu neexati yàlla rek mooy li ko neex te loolu wax na ko ci barab yu bari shi'tu allazi sha'a illahu wa illa yasha'u ma shi'tu bila durrin wala xawsiya fi ni ma ashaa'u bi kow kawnihi yaxluqu ma yashaa'u bu dee ci wàllu yonent bi nee na aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa xibbun wa ma abaahu yabaahu nabiyan al mustafa xayrul wara xëradi fi kulli chein wa ma yabaahu abaahu kon da gis ni kon kooka domte na passion domte na ko ba lu neex yàlla neex yonent bi loolu rek ñooy ñi koy neex juboo naa ñoom it ba ñoomit it lu leen neex moom neex na ko léegi nag lu ci des muy seytaane ak bakkan jóge na fi Mbàkke Kajoor jaar fi Mbàkke Bawol gii daaru sañ daaru salaam ba ni mu dikkee Touba ba ci biir géej gi ba nu jàpp ko atte ko ba yóbbu ko ci géej gi ci lay soog a wax ni rendi naa seytaan xataltu fil baxri seytaanan wa kabkabahu ñun nag ku ci ni bëreet léegi murit gu bees gi boo jàngee benn genn xasida képp daan yegg naa man foo yegg képp laay laaj ci nekk ni fi nga yegg laa bëgg a xam maanaam genn xasida ngay jàng xameesul bax pas-pas ba wér na xameesul ndax njàngin ma sell na waaye danga koy jàng rek fi mu ne jàpp ni yow moom yaay secrétaire particulier bu sëñ Touba maanaam jàpp nga sax ni koo gisati fi mu ne dalaa war a da nga ko war a jox cati baaraam jàpp nga ni koo gisati fi mu ne yaa ko tiim te sëriñ Touba dem na ba ci biir géej gi soog a wax ni rendi naa seytaane moom moom mi def xasida waaye loolu gën te yéeme ba tey sëñ bi jóge na ci géej gi dox fi at diir def na juróom benn weer fii jóge fi dem dem dem dem gànnaar daanaka def fa juróomi at jóge fi dem Ceen daanaka def fa juróomi at ba ci at yooyee mu def njaareem at yu bari yooyu ci lay soog a wax ni noot naa sama bakkan moom loolu nañ ma sama bakkan malaktu nafsiya wasal saxatulahi ñun nag ku ni bëreet ak sëñ Tuubaa ni mu jàmbare ak kàttan gi ko yàlla dëpp seetlu njaareem lay soog a binde noonu yi ñun ku ci ne ñokket fi ne ni yegg naa fi nga yegg fu mu maanaam fi fi fi nit ki yaakaar ni yegg na fu mu mag ñi àndoon ak moom ñoo gën a sàmm ñëpp ñoo gën a dégg ku nekk diine ñoo gën a nangu ku nekk ñoo gën a xam ku ne waaye gis nga mandal gi mi ngi koy xamee mooy ni lañ defoon ca ñoom la muy rëy rëy rëy koo ci gis waxtu wu ne mi ngi ci suufe moo tax sëñ Babacar Jaxate waxoon ko bayit yu am solo ni ko toroxlu ak suufe ak faj aajo moo di sa kër te kër gu dul gii gisee suñ nga duggati ca ñun nag koo fi gis mi ngi rëy rëylu di xëccut fi mu ne ak ceex ndax lan jàng nga ñaari bayit képp mbaa mokkal nga ko fi mu ne jàpp nga ne yaatiim ñëpp te man damaa foog ni safaan baa waroon am yow koy waxtu ne ci torox la nga war a ne waaye jàpp nga ni fi mu ne murit yëpp moom koo gisul mu yor xasida ci loxoom sax fi ne jàpp nga ni moom bokkul ci murit ci génn nga ko ci yàlla boo gis murit bu yor kurus nag nga ni ah kii de moom daanaka demut fenn donc gis nga yooyu mat naa bàyyiwaat xel te dellu ci lii sëriñ bi wax léegi lay mbir ma dëgg-dëgg ci sëñ Tuubaa bët lu ci tege bët ci tege kon nag loola xëñ na doy na ab tegtal ci ak murit ak mbooloo ma nga xam ne ñoo àndandoo ca loolu góorgóorlu nag ngir ni dann seen borom di wut sàkku ngërëmam donc quatrième étape bi ma doon wax cinquième ba ca topp mooy nag boo xisee am sëriñ bu matul sëriñ moom sa diine danga koy def mahabatu cheikh sopp ko rek mooy doon moom saw sa sa yoon di léegi nag soo demee ba yegg fa nga yegg nag soo ko yegg si ci dëgg dëgg dëgg dëgg nag sixième station bi mooy taxaw ci xitma lenn lu ci nekkit mënees na cee indi mbind mu leer mu sëriñ bi wax kon loola doy na sëkk ci xam ni ak murit nii nu ko fooge ak ni mu jàpp ni la yombe yombewut noonu moo tax Cheikh Abdoulaye da wax ni Serigne Touba nee na am na juróom-ñaari at yoo xam ni juróom-ñaar yi may bëgg lim gisu ci dara nee na Sëñ gisul góor ci juróom-ñaari at yi gisu ci jigéen gisul mag waaye gisul ndaw nee na dara lu mu moom nag nekkul ci loxoom du sarax buñ ko sarax du addiye juñ ko jox nee na lam fa am nag ca diir boobee sëñ tubaa nee na du ko maye sëñ tubaa nee na du ko salxe waaye sëñ tubaa nee na kenn mënta yootaan ba jot ca loolee kenn mënta yootaan ba jot ci ba ci ñi ñuy tudd di leen tudd sax ni ay doomi boppam lañu da leen a woo ca ca yéen sëñ Modou Moustapha Cheikh Modou Fadal sëñ Massamba Mbacké ak sëñ Modou Xëy Bousso ni leen man day duma bàyyi kenn sëñ Fallou mi nettaliwaat band bi ñu ñu xam ko wax xam ni nee na maag sëñ Mourou Moussa moom loolu man de du ma mag kenn nee na sëñ Massamba xam ne moom moom loolu man de du ma yi kenn sëñ moo xëy bi sa xam ne moom moom loolu li fi ne day jaay kon nag ginnaaw ñooñee la jaayoon nañu xam ne ñun nit nañ jéem a wuti njëg kon lay dara fa sëñ Touba buñ ko laajee dafa am njëg lay njëggal la kenn ku ci nekk dem a wuti te kenn mënu koo wut te defaroo sa jëm ba noppi defar sa jëm defar sa xol defar sa lépp jébbal sëriñ bi loolu nañ ko bàyyi xel te xam ni lii nu foog ni ca la nekk nekkul ca loola su ko defee nag ñu mën a ñëw ci ñaareelu tomb bi muy wàllu communication enjeu yi ci nekk ak yoonu murit tey jii wala bokk le message de sëñ Touba nga xam ne mooy li ma doon wax léegi nga xam ni lu wàllu nit ñi ak defar leen képp a ko taxoon di sonn sëñ Touba kenn mënta wax ni sëñ Touba coono yi mu daj yépp fi mu nekk nii am lu mu bëggoon ci àdduna tax déedéet kenn mënta wax ni sëriñ Touba coono yi mu daj bañ def ko fanweeri at ak ñett yoo xam ni privation dañ ko ko daanaka téye ci kaso ba keroog bi muy dajeeg boromam sëñ Touba mi ngi ci loxob tubaab bi. ndax défendre ndono lu mu jëlee ci Mamoor Anta Sali taxoon déedéet ndax bëgg nguur déedéet lenn lu ci nekk lu xet li jàmm ni képp moo tax mu ni la waxan yi mën naasu naa la baadulu ila talibi walakin la ma jahlu talabuhu xayruhu ay nit ñi bu ñu xamoon nee na sàllaw bu nit ñi xamoon mbooleem li ñu soxla te mënuñu ko ñàkk nee na ma fi romb mukk di ko wuti feneen ndax loola mu ngi ma téye te gis nga li mu wax muy lu am importance di ñu dimbali ci deuxième aspect bi ñuy wax mooy waxul jullit ñi waxul murit yi dafa ni cey nit ñi bu ñu xam alhamdulillahi almujib bil qadar man xasana balan bi laylatil qadar alhamdulillahi almujib غسنا فلا بليلة القدر معزما لساني آخداري حتى قدر خيرا من الفسار ثم صلاة وسلام أبدا على الذي خير البرية بدا